waaw na kaw si jëpp ah. ma jox la top de départ non non bàyyi mu mu. Euh, comme ni nga ko gisee ñu ngi fii kër euh, buntu maam góor gi Ndiaye euh, li ci xaw a yéeme nag mooy sànq sëñ bi gaañ nag man jeune bi bi ñuy bi ñu koy sànni ci tali bi ñun dañoo doon dugg ci biir kër gi mais bu ñu génnee lañ jëkk xibaar bi ndax xibaar bi mën nga ko dëggal. non loolu la demee effectivement yéen yéen fi woon journaliste yëpp fii lañ nekkoon. te tamit ñun suñu yoon nekkul ci ay politique suñu yoon nekkul ci ay xeex te policiers tamit nañuy sóor ne dëkkandoo yi ay mag a fi nekk lii c'est pas la première fois ba passé pas bi gis nga fii hôpital la clinique la fii lañ ko yóbbu pour masque ko ay gaz pas bi deux semaines yi daf feebar ay dix-neuf lacrymogène lañ sànni fii seen kanam mat na sax vingt pour lan léegi si biir kër gi bu doon si mbedd bi sax à la rigueur ah mais bu ñu sànni tamit policiers yi nañu xool fi ñuy sànni boo dëkk dëkk bi neexul. baal mais moment bi ñu sànni gàll lacrymogène ndax paa bi dafa nekkoon si biir wala. non mu woon ci bi a ngi ne ci ko lépp ci biir kër gi lay dugg léegi ñun def ñun nan nan lay def mooy ñu suñu papa suuli sans sans rien quoi loolu naay suul loolu naay. dafa génn gi wala dañ instant yi may waxee yow nii mu ngi ci biir génn ko naka nga koy évacuer policiers yi tali bi clinique bi ñu encombré ko police yi nekk tali ku génn ñu dóor a lacrymogène fooy jàllale paa bi fan nga koy jaarale mënoo ko yóbbu fenn parce que dañu jot xibaar ne ancien lutteur Mame Gorgui Ndiaye dafa wàcc liggéey te lacrymogène yi moom moo tax xam nga bu fekkee da nga jot xibaar te yéen ay doomam est que da di confirmer que ne grenade lacrymogène yi moom la inhalé loolu moo tax mu mu daal di gaañ euh, de yàllaa ko yor yàlla mooy seet ku ko soob ndax bi bi loolu la doon bii mooy troisième fois xam quatrième fois bu nooyee day étouffé ñu jël ko yóbbu ko ci poste santé bi mais instant yi muy étouffé fekk na tali bi encombré yi taxaw ci tali bi foo jaar moom par la suite yàlla def li gën ba léegi génnee guñ ko ci kër gi médecin bi la ñuy pour mu constater ko pour ñu yóbbu ko morgue ba waaw nii la affaire yi demee ah alors euh, Mohamed ñu ngi si buntu kër gi donc euh, voilà dañuy jëm a jël rek un peu réaction bu nekkee yenn ci membre famille bi mais li nga xamante ni ne mën nañu ko leeral mooy euh, sànq bi ñuy sànni gaal lacrymogène man mii di wax ak yéen ak sama journal sama ñaari caméraman yi dañu sonnoon ba daw dugg si biir kër gi mais ñun bi ñuy dugg si kër gi nag xamuñu ne woon ndax suñu papa ji di maam góor gi Ndiaye mi ngi woon ci kër gi en tout cas ñun leer ñu woon mais ñu leer ñu woon mais en ñun clinique la lii clinique la de moo nekk nii fii moo warul nekk champ de bataille même événement ñun fii la ñu dëkk si kàcc bi la ñu dëkk événement lu mu munti am ah fii warul nekk champ de bataille il faut que autorités yi loolu gendarmerie mu ngi fii tout près police mu ngi fii tout pare fii étage bi ngay gis nii tourné nga xool étage bi jël ko étage bi clinique la fii ay ay ay malade ñoo fi nekk ay opéré ay opéré ñoo fi nekk lu nekk lañ fii def waa léegi bu fekkee bi dañ ko bëgg def champ de bataille waa mais personne n'est à l'abri parce que mag aussi boo feebaree tëdd yenn feew am na yoo xamante ne mënu koo doo ko mën a dëkku fii ñëpp am problème tey jii ñëpp mel ni comme ku nekk guerre mel ni ku nekk guerre loolu c'est anormal ah il faut ñu revoir laal façon bi nga xamante ne moom la ñuy dalee si kaw citoyen yi loolu c'est même bu fekkul même bu dul lii sax c'est pas normal fii nii ñu ñu fi ñu fi à chaque fois rek bu rayante amee rek fii la ñuy ñëw rayante léegi hôpital bii lii dañ ko di ko sóoraale la. fii la nit ñi di seewaat di am na ñoo xam ñu ngi leen opéré ñu ngi foofu ci biir tëdd mais loolu c'est problème la il faut qu'il arrête bu ñu buggee dóor ay lacrymogène bu ñëwee ba fii ñu xool ndax fii lieu la bu ñu war a tiré wala du lieu bu ñu war a tiire jàkka jee ngi nii tout près dañ ko lacrymogène sànq tàkkusaan ba nit ñi mu amuñu fu ñu jullee loolu c'est pas normal ah c'est pas normal. en li ñu mën a jàpp ci information rek mooy euh, euh, génn ko àdduna suñu maam ji di góor gi Ndiaye Mouhamed kër gaa ngi nii ñi ngi wax ni mi ngi ci biir génnagul moom gaa maam góor gi Ndiaye suñu maam ji nag comme ni ma waxee un monument de la lutte sénégalaise moom mi nga xamante la yàlla def li gën ndax gaz lacrymogène moo moo indi moo sabab génn ko àddinaam en tout cas xibaar ba lu ñuy topp ni mais ñun waa Sans Limites bi mbir mi amee fii ci ñu ko euh, gisuñu ko te leeruñu ndax xamante ne moom moo ko génn mais en tout kenn si njaboot yi dégg indi na si ay leeral mi ngi si biir nii nag euh, dañuy bàyyi médecin bi moom mooy ñëw constaté le temps ñu koy euh, dem yóbbu ko fi nga xamante ni moom mooy euh, morgue ba daa di koy préparé en tout cas xibaar baa ngi noonu voilà en tout cas xibaar baa ngi noonu ñu ngi fii en direct ci buntu kër si buntu kër Mame Gor Ndiaye euh, di euh, un monument de la lutte sénégalaise ñëpp xam ko di euh, maanaam porte drapeau Fass di suñu maam di lépp def lu nekk ci Sénégal gis nga leeral yi nga xamante ni kenn ci njaboot yi indi na ko. xam nga bu parfois ci situation yu mel nii il va falloir que ñuy def ndànk parce que bu ñu ko waxoon bu fekkee ñoo ko wax mën naa indi problème bu dee du loolu mais da nga ba ci kër gi xam ne moom moo ko jur expliquer situation bi lacrymogène ci biir kër gi la ñu duggoon bu mën a daw tuuti euh, te ni mu ko waxee ne fenêtre moom la ñuy seen noonu dafa nekk ci bunt bi nga xam ne ne gaz ñoo ko mën a inhaler parfois mën naan di ay conséquences léegi doomam confirmé ne nag loolu moo tax gis nga ko ndeysaan euh, waa këram ñoo nekk noonu di jooy ak di daanu mu nekk kër euh, maam Gorgui Ndiaye voilà voilà ñu ngi fii nga xamante ni moom mooy Fass donc voilà ci buntu kër maam Gorgui Ndiaye mbokk yi dëkkandoo yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jóge fu nekk di ñëw euh, di ñëw di ñëw di ñëw fu nekk euh, di ñëw euh, di masawu njaboot gi di leen di bokk ak ñoom tiis bi en tout cas ñu ngi jégaluwaat baax a baax a baax ci li nga xamante ni moom mu fi am donc kenn ñaan ko kenn kiiwu ko kenn nekkul lu ñu sabab waaye nag koñ baa ngi nii ñëpp ñu ngi commencé di ñëw di fees maam góor gi Ndiaye comme ni ma ko waxee di monument ci wàllu làmb di ki nga xamante ni daanaka mën nañu wax ni moom samp Fass moom moo nekk premier tigre Fass daanaka moom si boppam jamono bi ngi ci biir kër gi suñu borom daal di def li gën li ko sabab dégg ngeen ci doomam kenn ci doomam nee na gaz lacrymogène yi moo ko sabab waaye nag comme ni mu leen waxee rek euh, xibaar baa ngi noonu euh, mbir maa ngi noonu doy na waa trop conséquences yi manifestation yi euh, at ak yu teg ah donc mu tëdd fii tawat donc gaz lacrymogène bi ci wàllu nooyam da ko dul àttan ndegam xale yi sax lay metti si ñoom asumalaak ñi nga xamante ne ñoom ñooy mag yi ndax ñun comme ma ko waxee bi mbir mi amee ñun dañoo daw dugg si biir kër gi bizarrement ñun xamuñu woon ni euh, suñu maam ji fi la dëkk parce que ñu xaw a bett euh, ñu dugg bi ñu duggee ñun may ñu ndox ah, donc may ñu ay ay vinaigre ah, jël ay ay soleil daal di koy a euh, ndax xawoon na métti trop suñu wàllu nooyi donc après bi ñu génnee nag ci la ñu yëg xibaar bi ñu yëgee xibaar bi nag comme ni ñu ko waxee sans du affirmer lenn loo xamante ni leer na leeru ko wala ñun du ñu xibaar bu wérul moo tax ñu taal suñu oto jubal ci waat fii ñëw ba ci biir kër gi gis ngeen mi ngi ci biir kër gi moment bii may wax ak yéen suñu maam maam góor gi Njaay mi ngi ci biir kër gi médecin bi la ñuy woo docteur bi mu ñëw constaté que ñëw constaté que mais génn ko àddina bi moom mën nañ jàpp ni say confirmé euh, maam góor gi njaay euh, maam gi Ndiaye bi nga xamante ni bu Fass euh, bu Médina bu Gueule Tapée bu Ndakaaru suñu borom daal dina def lu gën voilà mais ngoone mu mel ne souvent manifestation bi am de yi yi léeg-léeg da ciy bokk. maanaam li nga xam ne dafay bette. li ne jàmm dafa dafa gën xam nga moom mii manifesté wul ñu dëkk côté bi yëpp saa boo romboon da nga koy gis mu toog ci buntu këram. kon xam nga leen nañ dem nañ dem li ñu doon naqar ba pare ñu sax bi dem leen dem leen dem leen dem leen dugg leen fii dem leen

ay kaan kaan Ngóole mooy toog foofu Ngóole mooy toog foofu kaan kaan loolu baax na loolu. waaw yu jégul waat compliqué donc euh, comme ni ngeen ko gisee mbokkaan seen sans limite en tout cas xibaar bi xibaar bu ñuy bu ñuy wéral la donc euh, voilà ñun nag euh, li ci amoon solo dëgg-dëgg mooy ñu ñëw taataan xibaar bi te xibaar bi comme ni ma ko xibaar bu wér la muy génn àddina suñu maam ji di maam góor gi Njaay li nga xamante ni moom mooy am l' essentiel l' essentiel a nag euh, ni nga ko waxee dañuy continuer di wër xibaar di yi gis ngeen li nga ni moom mooy euh, gaz lacrymogène yi donc voilà xale yaa ngi continuer di euh, taal di di baare ni moom mooy yoon bi mu baaji xam naa du ñàkk dinañ fàttali numéro téléphone bi en attendant ñu wax leen rek ñu wane leen